ak Assane Top Issa Seck moo fettee ci machine bi mbokk ci déglu bi asalaamaaleykum daleen jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi na leen ko junjee woon ci njëlbeen gu ab xibaar la kon irajo moo am jagle gi conseil économique social environnemental tey fi tey mi ngi ci loxol soxna Aminata Touré mi fi nekkoon yilimaanu jawdi ci ay jamono waaye tamit ñi dénkoon ko ministre de la justice ma nga wutu fafele kon soxna Aminata Tall daañu toppandi